jërëjëf mbokki internetu Bprod Média yi amaat mbégte ak contentement comme niñ leen koy defalee saa su ne waxoon naa leen ko nee naa leen ngoonalu làmb fépp laay dem bàyyi ma mbër amateur bàyyi ma sax ki nga xamante ni mooy mbër yu ndaw yi waaye tey dama jël si euh, samay xarit samay soppe di ay nit ñu baax dëkk fi nga xamante ni moo di Pikine di ay gaynde dafa naa ne ay nag yu mag lañ duñu yàqu ngooñ ñii ma toogal tey di ay ndaanaan di ñi nga xamante ni doomu ndeyu Pokola lañu waaye bu mu nee Pokola bàyyiwuma Ama Baldé su ma nee Ama Baldé bàyyiwuma mbaru Pikine yëpp ñuy ay ndaanaan ñooy sotti ki nga xamante ni saafara moo di Pokola keroog gis nañ leen si ki nga xamante ni mooy bésu Ama balde bi naka lañ ko waajee ak taxawaay bi balaa boobu dama koy bàyyi mu nuyoo rek Alioune laay bàyyi mu njëkk a nuyoo Zé mu nuyu mbokk internet yi lin ñu ngi lay nuyu di la ziar Baye Fall bi. waaw ñu ngi lay fay bi. élément maam Serap Fall bi. Mhm. yu wax yëpp ñu ngi nuyu ñëpp mhm. di nuyu waa diaspora bi yëpp mhm. di nuyu waa Sénégal mhm. nuyu waa Pikine nuyu waa Touba di nuyu ñëpp ndeysaan yéen xamal ne bàyyi yéen a ngi seen kër daal yéen tamit ndeysaan kenn du yow yow Baye Fall nga waaw dama bu ba léegi waxuñu fenn boo ñëwee rek soo ñu ñu wax ndeysaan loo nag mooy loolu ndeysaan yow rek la ñuy déglu ndeysaan comme ni ngeen ko déggee ndeysaan bi ma ñëwee daf ma téye ci loxoom ne ma jàllal foo bëgg taxaw ci Ama Baldé xew-xew bi dimanche bii passé bi mu amee muy ku baax Aline Aline Lawbe muy ku baax ku baax sax barke alxuraan yàlla rek a tax may wax lin ñu jóge fi dimanche bi passé mhm. Ama Baldé bëre li nga xamante ne moo di làmbam mhm. daanu mhm. ñuy dégg ay wax yu sew yu ne waaye keroog dimanche bi nangeen ko waaje ñëw yàlla joxu leen ndam naka ngeen ko dundee waaw sant yàlla rek ndax jaam ak pexeem yàlla ak dogalam. wallaay dëgg la. xëy na ba ñuy dem. Hmm. ndam lañ yóbbu. Modou Lo bu ñuy ñëw ndam la yóbbu. Hmm. waaye ñaaree dugg mais benn ay génn. waaw mais dañ koy sante yàlla xam ne ñun su ma juumul 2012 ba léegi. Hmm. waaw ñu ngi koy mën. ndeysaan waaw 2012 lañ gëj a dégg mu ñëw. kon bu ñëwee tey doon dem ba yegg si fii. yàlla defee ko nii kon yàlla am na leneen lu mu dencal lu bokkut ak lii nii. ndeysaan te man. instant bi yoonu Ama mën naa ne sax am na lu lëndëmoon si man mais instant yi la ma gën a leer hmm. yoonu Ama roi des arènes hmm. instant bi lu ma gën a leer barki Serigne Touba instant bi la ma gën a leer hmm. combat bi na trop mais dañ ko àndoon ak jàmbaar waaw jàmbaar lañ si àndaloon barki Sëñ Fallou ndax moom bëre ak blessure ak yeneen yoo xamante ne nii. ndeysaan dañ koy xam mais duñ ko wax. ndeysaan mais ñu ngi siy sant yàlla daal. comme ni ko gars yi doon waxee nan ama bi muy bëre ji li mu yan moo diis bërewul ak Ama Baldé kese. waaw loolu tamit am na ndax c'est la première fois muy bëre arène nationale tamit c'est la première fois muy bëre roi des arènes. c'est la première fois mu Modou Lo tamit. war a jamaarloo. yan boobu yëpp day diis si moom. te tamit attan na ko de. mais yàlla moo ko namee nii. ndeysaan walaay dëgg la yàlla moo ko namee nii bu yaafuus. Mm-hmm. barki Serigne Touba. rawal ah mm-hmm. la. Mm-hmm. man xam naa si dara bu baax man Pokola. sama xarit la. ndeysaan mais ah mooy sama mbër. Ah. Pokola sama waay la ñoo fowandoo ñoo defandoo lépp. mais ama mooy sama mbër. ok tey Pokola ko laal laal ma. Mm. mais ama laay toogal tirbine laay dawal laay sonnal laay waaw di werante ba nii bàyyi ma werante si Ama mais am na fu may yem am na fu may yem bi mooy du ma génn di xuus si fenn di dem fenn di werante wala dara mais mën nañ toog détail si Ama nii ak nii nga wax ma ne la nii ak nii ak nii mm. mais Ama combat bii nii mu jógee nii yàlla xañ ko ko nii. Mm. man gëm naa ne am na leneen lu mu ko dencal. ndeysaan dëgg la. man gëm naa loolu. Mm-hmm. man du ma wax ay kii moo ñu nii wala kii moo ñu nee kii moo ñu nii man du ma wax loolu. Mhm. ñu Pikine ñun ñëpp benn lañ. Mhm. Bati Sëñ Fall ñu ñëpp benn lañ. tey Modou Lo ak Ama benn lañ. Mhm. Ama bi ko Modou Lo bu ko Modou daanee da koo ñoo kottante. fii seen ndeysaan bilaay ah, gest bu rafet. geste bu naaj boo xam ni tey am na ñoo xam ni. Modou lañu faral. yàlla rekk a tax may wax. am na ñoo xam ni man woo nañ ma. ne ma mais Ama Baldé gest bi mu def. tax na mu Ama de mooy sama deuxième mbër. léegi te xam naa ni sax du seen deuxième mbër ndax ni geste bi Ama de def. neex na leen boo ba ba tey dañ ko gën a sopp. Mhm. Mhm. moom geste noble lay def chaque jour na xamul ndax moom moom mu nekk sax mu gën a nekk sax jàmbaar tey mhm. làmb noonu na gën demee neneen. ama dafa sëbi bis bi si lépp. ndeysaan ama tooñ nañ ko sax si digg géew mu aju. lépp ngir bëgg bis bi réussir bis bi. bis bi jàpp tey am na ñoo xam ne nii li ama doon jànkonteel ba bëreeg Modou Lo. Hmm. billaahi buñ ko xaajee xaajaat ko lu leen si waxoon duñ bëre. mais ama yaafusul ama entraîné na sonn na si làmb ji luy coono daj na ko. Hmm. amul lu mu dajul si làmb ji. billaahi ñu ñoo nekk ak moom amul lu mu dajul si làmb ji. billaahi wallaahi da cee sonn def si lu ne def si léppam. Hmm. mais xëy na. yàlla am na leneen lu nga ko dencal lu dul lii mhm. billaahi wallaahi wa taalaay man ni may gis man mënu ma ko sax xool nii oh. mun naay wax ak moom nii de mais mënu ma ko sax xool barki Serigne Touba ndax jàmbaar gum nekk jàmbaar bëre ji nëbb ko ñëpp bele siram nëbbu na ko ñëpp dem bëre ji kenn xamu ko oh. kenn la ko dara dem bëre ji mais pikin am na si ñoo xamante ne nii nañ bàyyi di wax yenn wax yi. wala ñii mhm, mhm. surtout nañ ko bàyyi. Mhm. ndax ñun ñëpp benn lañ. Pikine benn la. waaw ñun ñëpp benn lañ. yéen jur parcelle. waaw te man lu tax ma xam ne Pikine ñun ñëpp benn lañ. man Garga Mbossé. ak Boña am naa si lu ma leer naññ si diggante Ama ak Boña. si wàll ay waaw loo xam ne nii xam nga rek. du ma si xuus doo toog si dëgg la fii di ko wax. walaay dëgg ma si xuus du ma ci sori. mais Ama yàgg naa sonnal mbëru Pikine. Oh. ma seen Sène Bombardier bi ñuy jëlee ji roi bi. Mhm. waaw. oh. yàgg naa daj ñoom tamit noonu mais ama moo nekk koo xamante ne nii Baye Fall la. man metti woon na ma trop ba nii daf ma metti. oh ndax man instant mënu sax <coughs> firi. Mhm. mais après damaa demaat ba si biir ma xam ne Ama Baldé am na leneen ndax damaa liir yoon. Mhm. yoonam laa liir ama instant bi ñu toll nii. ay waxtu rek. lépp lu ñu ñàkkoon dinañ ko teewaat suñu loxo ndax xale bu ndaw la 89 la ama xale bu ñàkkagul dara barke Serigne Touba li si kanamam moo dàq li si ginnaawam billaahi wallaahi wa li si kanamam moo dàq li si ginnaawam te am na ñaanu waajur. man xam naa si dara complice la. waaw oh. am na ñaanu waajur te baaba yoo tamit. gërëm na ko waaw yoo gërëm na ko. ndeysaan moo ne na ko suñu kanam. Hmm. gërëm na ko foo xam ne ay écho moo ñuy dal. dëgg waaw ñu am na lu ñu fekkee si diggante moom ak baaba yoo. bu dee tuut sax fekk hmm. nañ. ndax ñun baaba yoo xam nga. moo nekkoon sunu maam moo nekkoon sunu lépp. wallaahi mais ama moom. Hmm. koy ñaanal rek di wax tamit ñun pikin ñëpp benn lañ. waaw dañ xam nga dañ ñaanal Eumeu Sène dimanche yàlla may ko ndam. ndeysaan si barki sëñ Fallou. defe naa ni sax foofu laay ñëw ndax euh, defe naa ni bi amaabal Baldé daanoo dégg nañu ay wax yu nekk. Mhm. biir pikin te defe naa ni Pikine moo jur parcelle. Mhm. pikin moo jur <laughs> li ko wër. Pikine defe naa ne bu yëngu woon xajul si benn quartier waxantuma la ak benn kii. Pikine mooy Sénégal mooy Sénégal. Mhm. mais wax yooyu nga xam ne gars yi ñu ngi koy wax jëmale ko si li nga xamante ni moo di biir Pikine te yéen ngeen di ay deretu Pikine. Mhm. juddoo fi yaroo fi màggee fi tey wax jooju naka la leen def ak ñi nga xamante ni ñi ngi jóg di wax si li nga xamante ni amul benn bopp amul benn genn. waa mais nga baal ma de baabaal bi. moo sonal ñun doom yi. dolli pikin yi. Hmm. fii daa may doom pikin am ay dolli pikin. ok. dolli pikin yi rek a ñu fi sonal. ñooy ñëw comme sama genre gi ñëw si am dem fii wax demaat fee wax ñëw fii wax dem fee wax te yow mbër mi tey. Hmm. am na coono yoo xam ne billaahi wallaahi wa su la suñ la ko tegoon doo doo ko tegu mais. wax rek nga siy def. ndeysaan féete woo wax nii doole Pikine yi rek a ñu sonal mais doomu Pikine yi xamante nañ seen biir. billaahi wallaahi wa taala ba dernier moment wax ji dina bari mais ba dernier moment doomu Pikine ñooy toogaat. mais doole Pikine yi ñoo sonal ku si nekk jaar fii wax topp yi ku si nekk sama genre gi di wax ñii di wax fii ñii di wax fii ñii di wax fii. Mm-hmm. te teewul ñun Pikine ñu ñëpp benn lañ. tey man. man tey amul benn man damay dem stade man lu may dem stade am na ñoom sax dañ naan yow li ngay dem stade dafa bëri fekk du loolu de. Mhm. doom Pikine rek laay. supporté booy da ngay gis kuy bëree quatrième combat ma dem stade léegi ñëwaat léegi. ñëwaat léegi ndeysaan billaahi wala ndax lan kii doom Pikine la. xam ma man doom Pikine rek laay topp. Mhm. wër na yàlla benn xaritu mbër laa am bu dëkkul Pikine muy bébé Diène. ndeysaan te du tay. Mhm. waaw man ak moom du tay yàgg na. di ko nag yàlla na ko yàlla may ndam si combat am bu mm-hmm, mm-hmm. yàlla na ko yàlla <laughs> defal jàmm Bébé Diène mm-hmm. waaye ngeen jëm dimanche Eumeu seen war a jàmbaarloo ki nga xamante ne moo di tafaatin ngeen di ay doomu pikin pikin woote waat ak wax yi fi jot a am naka ngeen di ngembee ki nga xamante ne moo di Eumeu Sène gunge ko ca dimanche mu dem jëli ndam bi ñëwaat waaw comme ni ñu daan ni ñu ko doon waajalee rek comme ni ñu ko waajalee combat am ak Bombardier bi passé rek ak moo yi fi jaar ndax ñun Eumeu Sène moom wax dëgg na yàlla moom yàgg nañoo moom yàgg nañ koo topp yàgg ñun doom Pikine rek. te mm-hmm. Eumeu Sène instant bu ñu toll nii. Mm-hmm. moo fi bërewaat muy mbër bu mag. waaw instant bi dimaas rek lañu am. Mm-hmm. instant yi dañuy ñaan yàlla. xam ma. buux ko bu ñu demee ñàkk ko dolli ko dar ko toog si kaw. xamal na ko doom Pikine yi ñu ngi ñuy toog. ñaanal ko yàlla yàlla may ko ndam. te man. man awma lu dul Pikine man man seen naa awma lu dul Pikine ku xool ni ngay waxee xam ni ndeysaan awma lu hmm. dul Pikine man Pikine rek laa bëgg wër na Serigne Touba ñu bëri ma yow da ngaa rasi mais du affaire de rasi si sa man laa xam hmm. man su ma génnee sax làmb moo tax sax léegi may génn di dem di ñëw wala yooyu moom mais man Pikine rek laa xam ndeysaan billaahi ama seen nag moom hmm. di ko xamal ne ko drapeau bi moom tegaat nañ ko si loxoom moo war a jëli ji ama lañ ko tegoon si loxoom instant bi ama bëri na ba noppi yàlla def na li gën te liy ñëw si moom. Mhm. mooy dàq. mais Eumeu Sène na xam ne moom bëriwul moom kese. ndeysaan mhm, surtout. bëree bëriwul moom kese. combat bi keroog mu def open press am. Mhm. ndeysaan wax na ko ci biir waxam. nee na Ama Baldé dafa am ku mu ko booleel mu woo ko. ne ko li tax deful open press bi. mbooloo mi ñëw. waaw ndeysaan waaye boobu Eumeu nee defu ko ngir. ngir mm, pikin am jaxasoo wala dara. waaye noonu rek lañ ko mënoon defee. waaw ngir soutenir Ama Balde. ak defet bi mu jógee. noo moom jàmbaar la sax. Mm-hmm. ama seen jàmbaar la sax ndax xamu lu mm-hmm. nit bu nekkee sa waay naqaram na doon sa naqar. wallaay dëgg la. nit bu nekkee sa waay mbégteem na doon sa mbégte. Mm. te man. Mm-hmm. man ama seen. lu lan laa ko jàppee. ama seen bu daan bëre ji. boobu ñu nekk ay tout tànk noo def bu ñu nee suba la combat am wala buy dem stade dina jaar si baabu yow mu ñaanal ko hmm, day jaar si papay Ama Balde per Falaay Balde mu ñaanal ko billaahi wallaahi tàllaay jamono yooyu ay kolifay yëpp si laa leen xamee oh kolifay ñoom kolifay si laa leen xamee woon ak yeneen mbër yoo xam ne ñu ngi woon si ginnaaw Eumeu Sène te loolu maa ngi koy fàttaliku nii kenn kenn waxuma ko billaahi wallaahi te am na am na loo xamante ne nii tamit hmm. buñ nangu kuñ jaxasee ko ay dëgg la buñ nangu kuñ jaxasee am na ñoo xam ne sax dama leen di xool ñuy wax si pikin te hmm. dëkk dëgguñu pikin ndeysaan mais loolu du yoon hmm. nit boo demee bay wax da ngay maîtriser li ngay wax da ngay maîtriser hmm. ngay maîtriser li nga xam li ngay wax te Ama moo nekk koo xam ne jàmbaar la kenn ko jaxasee ak doomu walaay dëgg la Ama bu doon dañ koy jaxasee ay doomu aadama kon Ama si bëre ji kenn ko topp buñ ko doon jaxasee ay nit mu koy gëm buy bëre ji kenn ko topp mais xool bi rafet bi Ama yor xol bi mu yor bis bu ko ko yàlla fayee waxuma la roi des arènes mais Ama dina am est-ce que du doon sax meeru meeru Pikine billaahi Ama yoru sax yoru sax xolu mbër di mm. koy mbër la yor mm. mais Ama yoru xolu mbër ndeysaan barki Serigne Touba man toog naa ni laa la am du pare plein combat paase mu jóge mbooro daj lu metti añ sax du ko def ay banaana lay lekk mm. ñëw mm-hmm. ñu taaj reeram mm-hmm. ñoo ko reer barki Serigne Fallou reeram mm-hmm. maa ko reer ñoo ko reer ñun ñëpp añam bu taajee ñun ñëpp ñoo koy añ oh. yow loolu mbër loolu man man de benn seede bu ndaw rek laa si dolli jour bi mu waree def bi mu waree jàkkaarloo ak euh, Modou Lo dernier face to face bi bi mu demul barke alxuraan jour boobu Abdallah giseen nañ ñun ñi gis naa leen mm-hmm. jour boobu mook mbooloo bi ñoo añandoo. ñooy añandoo ci mbedd bi. billaahi mu sol maylus bu noir. bu fekkee li may wax amul. ku dem bii boro tappe ko di nga ko gis. yàlla xam na ko. waay looloo am pour seede li ngay wax nii. kii xam ni ma lool moo am moo ne si moom kooku déggul ma la kooku loolu dafa yàgg si moom. Hmm. ama la ñu ngay toogal nii xaalis ñëw mu. yow mi fekkee sa yoon si bokkoo yëgoo ñu may ko xaalis sa kanam léegi mu tasaare ko ñëpp jot ñëpp téye barki Serigne Fallou Mbacke man ah daf may woo mu ñëw mu may ma te sama loxo càmmuñ du ko yëg. oh barki Alaaji Fàllu Mbàkke des fois damay toog nii sax mu woo ma kaay ma yaakaar ne lu nekk la may doy wala dara mu am lu mu expliqué jékki-jékki jël sama jël loxom dugal ko sama poos barki Sëriñ Fàllu ma xool muy nangam ak nangam. billaahi wër na sëñ Fall taw du man kese la ko sekkal. du man dong koñ bi cat ba cat. ah dafa am ñaan. billaahi wallaahi wa taalaahi ah, par force allah kulli alim billaahi wallaahi wa taalaahi. isaan lu mu mébét nii. Hmm. non yoon bi dafa gën a leer a oh, dinaa si ñëwaat seen naa Aline xanaa ma nuyu Abdallah di ko ziar bàyyi ko mu <laughs> sànni si ay kàddu rek ndeysaan ndax moom it kuy sonn si Pokola la waaw kuy suivre làmb wala ngay dund làmb wallaay Azim boo xoolee di nga ko gis si wetu Ama di nga ko gis si wetu Pokola Abdallah ma bàyyi la nga nuyoog mbokki internet yi di la ziar. <laughs> maa ngi delloo ziar. Mhm. di nuyu ñëpp di nuyu waa Pikine ñëpp. ndeysaan di nuyu aduna. Mhm. di nuyu ñëpp. Mhm. maa leen di ziar bu wér a wér. ñu ngi dolli ziar keroog ngeen bëre li nga xamante ni mooy combat de l'année sax laay wax ndax combat bi dañ ko doon xaar. waaye gis nga li nga xamante ni moom la suñu borom dogal ngeen gëm ko nag xam ni lii borom bi teg leen ngeen nangu ko it keroog bi amaa daanoo naka la leen def ah defuñu dara de. Mm. waaw wax dëgg fa ne yàlla man moom wax dëgg fa yàlla moom combat amu musuma dem seetaan amu estat. amu mm. jàppale nii nii si kër gi yëpp mais combat amu man duma seetaan amu moom di bëre. lan duma ko seetaan lu tax lu tax. duma ko seetaan yëg-yëg may am man dongu maa ko xam. allahu akbar. amu man duma ko seetaan komba amu Papa mm. kese kese lañ ma forcé ma dem estat. te ba ma demee stade avant arbitre di siffler génn naa di dem ñu téema ñu téema ba ma xam foofu. Oh. boobu laa bàyyi man ama man mënu ma ko seetaan man muy bëre. xaw ma loolu lan man ama du ma ko seetaan muy bëre te làmbam ji passé dong sax moom moo ci mujj bii nii rek. bii nii avant arbitre di siffler rek mooy loolu. ak ni nga si sonnee avant ama di génn maa ngi lay gis ngay defar sarax yeeg ci mukaay yi ni nga doon duggee di génn. ama ba ni muy génnee di dem stade di def lépp ama mi ngi victoire am lan. am ba ni muy demee stade lépp mi ngi biti waaram. Hmm. yàlla mooy dogal. yàlla mooy dogal ba muy génn yëpp taxaw naa si bunt bi woo na ma ba ma ñëw xëcc na hmm. ba ma ñëw. gis naa ko xëcc ma ne ma billaay damay daan. daa yàlla ak dogalam jaam ak pexeem. nii dong la mënoon deme xam naa defet bi nii nii sax daf ñoo jig. da defar daf ñoo jig. Hmm. daf ñoo ndax buñ daanoo. boo yu si bari dinañ ñàkk seen bakkan day boo yu si bari si Pikine dinañ ñàkk seen bakkan mais lii mooy li gën ndeysaan mooy li gis nga ko noonu Zé defe naa ni wax ji <laughs> leer na comme ni mu ko waxee rek yàlla buy defar day mel ni luy yàq ndax wax ji rek foofu la jëm defe naa ni sunu borom lépp lu mu def rek mooy li gën si nit ki dafa naa ni dina la teg nattu waaye foofu lay xoolee kii sama jàmm bi ndax mat naa ko dëgg dëgg dëgg man mbuur ndeysaan te wax ji dafa naa ni foofu la ñëw tey mais bi ngeen daanoo ngeen gëm ni sunu borom mooy dogal ak Pikine wax ji nga xamante ni moom la ñuy topp di wax Pikine du ñu benn du ñu deux cent pour cent te pourtant avant Ama di génn gars yi def nañu benn jël benn oto wool mbooloo bi ne génn nañ Pikine authentique bu bees ndeysaan Pikine authentique mooy sa veut dire que deretu Pikine mooy daw sa yaram. dëgg la keroog ak wax ji nga xamante ni génn na bi ñu daanee Ama. gars yi nga xamante ni ñi ngi féewaloo mbër yi Eumeu Sène ak Ama jubóowuñu Boy ñaa ak kii mu jubóowuñu loolu naka ngeen ko jàngatee. Pikine tey la gën a nekk Pikine 100 cent. dégg naa dëgg. tey. Hmm. la gën gënoon nekk Pikine 100 cent. tey jii nii la a nekk 100 cent. gaa yi wax nii nii daan pikin pikin pikin xaaj bi yëpp dëkkuñu fii nii. ok xaaj bi naan pikin pikin yëpp dëkkuñu fii nii xaaj bi yëpp ay luyaas lañ fi. Hmm. xaaj bi yëpp ay luyaas lañ fi kenn amu fi titre xaaj yëpp ay luyaas lañ kenn dëkk fi ñoom ñoo bëgg a ñëw jaxase pikin am ak mbëru pikin yi. Hmm. sekk nañ jàmm sekk salaam. Hmm. lu ñu xewle dinañ dem. <laughs> kon ñi nga xamante ni ñooy jëm a yàq defe naa ni fii loolu taxul cent pour cent bi jóge fi deux cent pour cent bi jóge fi authentique bi jóge fi comme ni ngeen ko gisee sama Baye Fall yi laa seet si woon tey dafa naa ni mhm, ñëwal waa Pikine authentique tamit mhm. su mel ne ay ñoom alaaji ay ñoom lamit mhm. gars yi noonu noonu ñëpp ñoom jàpp nañ si làmb yi bu baax a baax a baax ñoom heure bu ñu amee combat ñëpp ku si am combat dañ ciy taxaw bu baax a baax baax Pikine authentique Pikine authentique moom ñu ngi def liggéey bu rafet rafet rafet gars yi mhm. nañ leen jàppale ñu dooleel leen mhm. ba Pikine authentique bi am doole mhm. jëm ci kaw a kaw a kaw si woo ñëpp nag joxal <laughs> seen naa dafa naa ni waxtaan bi neex na bëgguñu sax mu jeex ndax lu neex du doy waaye liñ fi gars yi dégg dëgg rek la dëgg kese kese kese seen boo amoon yan kàddu nga ciy dolli yi nga xamante ni moom la Pikine di jàmbaarloo fi mu ne nii waaw man nag esaay sama doom nday laa wax si quoi Pokola Pokola mhm. sa xarit sama doom ndeysaan mhm. waay gis naa loolu defe naa ni li muy sangoo làmbam yëpp yaay <laughs> te defe naa ni loolu ku mhm. wóoluwulul ku wóoluwul sa doomu ndey dëgg doo ko def non dafa yàgg loolu noonu mu lay defal nga koy defal yow it Pokola bi ñuy bi ñuy ànd ma ak moom doonaguma dara moom doonagul dara bi licence am yi dem lijjanti licence am. Mm. man ak père baaxum ak moom. Mm. ba mu licence am ñëwee ba teg licence am sama mag a ngi nii du ma bàyyi ma fen du ma fen sama kanamu mag. rool na ma sam sa mooy dund sam papa fi nañ dem sa mu ñaan si licence bi. oh. boobu wàññeekoo guddi. loolu daw na yaram ndeysaan. barki sëñ Fallou. doomu ndey. waaw sam papa moo ñaan si licence bi yàlla def moom combat. ma ne ko ah papa Pokola am combat mu ne ma hmm. kooku tànk yaa ngi ànd ak moom day doon mbër. allahu akbar sam wax ma loolu. sam papa moo gën a yokk tax amoon naa ngëm-ngëm mais sam moo gën a yokkoon tax ma xam ne Pokola jàmbaar lay doon. ndeysaan Pokola Zokob. Mhm. ñoo ñëpp waaw. ndeysaan. mooy loolu. <laughs> mais yow. Mhm. tamit maa lay ñaanal. yàlla defal la jàmm. kenn du yow. Baye Fall bi waaw maa ñaan lii doon ay télé télé. te gëm naa ne man mhm. barki sëñ Fallou ku la laal laal ma. ah rawal loolu <laughs> loolu mbégte la ku la laal laal ma. <laughs> loolu nga lawbe bi si gi tey. ndeysaan kër lawbe sax sa kër la. ndeysaan ndeysaan barki sëñ Fallou Mbacké. ndeysaan ñaanal soxob. Mhm. combat bi. Mhm. buñ jàppaatee date. waaw waaw waaw Jacob dafa xaw a taw mais mais sa waa maa dégg ñu naan dañ ko bëgg jox Talfa. non Pokola Talfa Talfa instant bi mooy loolu. maa ngi gis démb gars yi di def ay direct si boole koog Talfa. Hmm, mais Talfa instant bi mooy loolu Talfa instant bi xam nga rek waaw ba du tan jéggi na ku melentaan wala. laa <laughs> ilaaha illallaah. instant bi ñu toll jox ñu si kaw combat soog yi dafa dañ see sonn. <laughs> Hmm. waaw. voilà hmm. instant dañ ko jox ñu si kaw Talfa moom. ala kulli aalin dañuy bëree. loolu man maa la ko wax. man seetlu naa kan moo soxla drapeau bi du yow nga wax. daa soxla drapeau talfa loolu la ma waxoon mais mais talfa dinañ bëre waaw mais du tay waaw nañ def nii moom mu def nii moom mu nii waaw waaw waaw di ngeen daje ci ci rond-point ba si kaw mooy dàq defe naa ni ci kaw mooy dàq <laughs> mais balaa ñëw tëj rek mhm. comme ni ma ko defee sànq laa koy waxaatee dimanche ngeen jëm mhm. Hmm, mobilisation bi nga xamante ne moom ngeen di waajal. non ñu ngi ci si moom instant bi moom Pikine gi yëpp ñu ngi waajaat. Hmm. waaw ñu ngi waajaat. Hmm. ñu waajaat. waaw. ñu xam ne tamit ñun ñëpp benn lañ tey barki sëñ Fall tey tey ginaaru Pikine su doon bëre ji. wallaay seet naa toog naan ay naan. waaye kii sama néew si moom. ndeysaan barki sëñ Fall bu ñu ko daanee bu vingt une heure wala vingt deux heures sa xol daa am lu mu laaj. wallaay dëgg la wallaay dëgg la Pikine. da da ndax sama mag ji démb loolu la wax Bourgéwal. Mhm. nee na gis nga li ma gën a neex si doomu Pikine mooy. Mhm. doomu Pikine mbëru pikin rek lay faral. waaw doomu Pikine. Mhm. waykatu Pikine rek mooy waykatam. ak ay dëgg doomu Pikine. feccukatu Pikine rek ay <laughs> mooy xaritam. mais nongoloo sax mooy sunu waykat. mooy li mu waxoon dafa ne guddi guddi Pikine lay fanaan. waaw dëgg la. guddi guddi lu mu guddi fa Pikine laay fanaan yi mhm. loolu dafa nekk si deret bi muy don mhm. sant la hmm. barki sëñ Fallou sant la billaahi wallaahi wa taala la tey man doomu Pikine doomu Pikine wax ma la dara sax de mais doomu Pikine su ma génnee gis ko sax mhm. sama yaram day daw ma naan kii de Pikine la dëkk ak fu ma la mënti romb oh billaahi Touba dem naa fa gis benn waay Babacar lii gis bi la dëkk su ma déggee na xam lu may wax ma romb ko barki sëñ Fallou muy dox sam benn waay yor benn machine ñu war a dem dindi. Oh. mu jékki-jékki ma ne ko gaan taxawal kii xam naa ko de Babacar affaire yooyu noonu. mu ne waaye kii nga xam ko nii ñu dem fii Touba dox daje ma ne ko dox daje mais ñun Pikine lañ dëkk. Pikine lañ dëkk. ma wàcc wax ak waaj ne ko foo jëm mu ne ma Daaru Xudóos laa jëm ma ne ko ah, su doon dindi nga jëm de bu dee deux temps lu mënti doon bu dee vélo sax dañ lay teg. dañ la koy tegaale yóbbaale amuñu woon kii de mais si la ma gën a jàppee oh. ndax geste boobu ma def bàyyi moto bi ñoo ba si moom wax ak moom ndeysaan te yàlla xam ne ñun ñëpp benn lañ mm-hmm. ñun ñëpp benn lañ buñ kenn jaxase mm-hmm. nañu bàyyi ñu bokk ndey bokk bàyyi xamuñu loolu moo ñu sax jig mm-hmm. pikin benn ko jig benn bopp moo ko jig cikin buñ boolooyee rek kenn mënu leen waaw buñ boolooyee billaahi bilaay dëgg la mënu leen bilaay bilaay bilaay mënu leen <laughs> wër na sëñ Tuubaa ndeysaan buñ rek kenn mënu leen billaa ñaanal Eumeu Sène nag yàlla may ko ndam bu mhm. sedd guy mhm. ak booy Pikine yi am combat yëpp waaw ay ñoom Njaga Caam ñoom Babacar Baldé mhm. ñoom Jacob Baldé ñoom ñëpp yàlla na yàlla may ndam ñaanal sama doomu nday nag yàlla na am combat ndeysaan incha allah yàlla na am combat xanaa loolu la ñuy tàggoo rek bàyyi la nga nduyu mbokk internet yi tàggoo ak ñoom <laughs> ñi nga xamante ni ñoo lay bëggee waaw waaw waaw ñu bëggee gaa yëpp bëggee sama gaa yëpp nag waaw mm-hmm. sama gars yi nga bi yëpp ah. waa alayaa waa sixième science waa Miami waa Kaku. ndeysaan ah, waa Texaco. waa Mustalifa. Mm-hmm. Mm-hmm. gars yëpp. ndeysaan mafia bi nag. waaw mafia bi nag sama mafia bi. ndeysaan dégg ñëpp. dégg waa Géejawaay waa amoo 4 amoo 6. waa waa waa Limaamu Laay. ndeysaan ñëpp parcelle Caaroy. waa Touba Touba Seras. am na ñuy jàpp si combat Pokola. ndeysaan ak Serigne Touba. ndeysaan billaay gaa ñuy jàpp si combat Pokola. ndeysaan am ñoo xam billaay combat Pokola billaay dama leen di yërëm. même booy Grand Yoff yi ah. eh, foofu mooy daj dëpp gi. <laughs> Grand Yoff moom mooy daj dëpp gi. ndeysaan Grand laa gis ay booy yoo xam ne. dañ ko bëgg seen oh, lonko la man fekk naa ko fa ndeysaan yàlla xam na ko. Grand Yoff ay réel góor a fa dëkk nag. <laughs> ndeysaan ay réel góor. <laughs> ndeysaan billaay mm-hmm. nag. sama doom nday Fouta. ndeysaan Fouta production. sama waa ji kenn du moom. sama téléphone réeré moo may téléphone. <laughs> moom mu jëndal téléphone. ak baax te instant bi ñu toll nii fa laa war a. waaw ah. moo war a wàññil yoon. <laughs> bilaay yoo tamit di leen bëggee. non sa waa yi ndeysaan waaw yéen moom. waaw li si kanam mu ñu ñëw. raw li bët si kanam fu ngeen ma soxlaa. walaay ku ngeen mënti soxla. Mm-hmm. man su ma ko fekkee wala ma kii ko. Mm-hmm. barki Serigne Touba bu dee benn. micro sax mooy dugg yéen di ngeen wax. ndeysaan ndax yéen ay Baye Fall ngeen. élément maam Serap Fall ngeen. kenn du yow <laughs> gërëm sama yaay. waaw yaa bi mala ñu ngi koy nuyu gërëm sama mag. sëñ Saliou sëñ Saliou maa topp si moom. Baye Sall indi na précia bi indi ataaya bi. ki maa topp si moom. ndeysaan barki sëñ ki mm-hmm. jàmbaara ngi nii. Mm-hmm. barki maam Serap Fall gërëm Marème borom añ bi. ndeysaan Marème gërëm waaw gërëm Ibrahima. Mm-hmm. Demba. Cheikh Pape. ndeysaan di gërëm ami Kole sama mag bi nekk Njaareem ndeysaan di gërëm sama mag bi nekk Italie Cheikh ndeysaan maa leen gërëm gërëm sama famille gërëm yàlla ñoom ñëpp yàlla na yàlla defal jàmm nag leen wax nag bi mën na loolu wala ah mën na ko de mën na lu raw loolu sëñ Touba nee na hmm. ku si amul waay wallaay ut si morceau ku ci amul waay wut ci morso man da takk naa la tey morso yaag ak sama grand bi toog <laughs> mbokk yi gis ngeen ko defe naa ni wax ji macha allah tegu na ci yoon tegu na ci yar tegu na ci teggin li ñu boole nag wax naa ko nee naa ko Seera far rek a ñu boole. dama koo gis. amaa balaa moo bëre pokolaal moo doon bëre. ma ñëw ci buntu kër gi jox ko ki nga xamante ni moo di Fouta production téléphone. waaye waa ji bi ma accueillir ni ma def. moo tax ma def ko ni ma def ma def ko lu ko raw moo tax moom it fu mu ma woo ma ko kii lu ma jàppoon barki alxuraanu karim su ma woowee xaaju guddi bu ma woowee ma jël ko ndax ni ma def keroog Ama Baldé bi muy bëree jafe-jafe yi bari na mm-hmm. presse bi amuñu fu ñu taxaw dafa xëcc sama loxo ne kaay foo bëgg taxaw ma ne ko feene laa bëgg taxaw mu xëcc ba ma ñëw mu rombule ma teg ma fa mm-hmm. kon man maa lay fay sama waa ji ndax tey lii ma lii ñu def nii yombul mm-hmm. ca kër laa la fekk nga yaatal ma presia bi dal na ataaya gi dal na ceeb gi neex na di la ñaanal li nga bëgg soxal yaa xam yàlla ko borom bi defaral yàlla bàyyi la ak Ama Balde bàyyi la ak Jacob bàyyi la ak ñi nga xamante ni ñoom ngay àndal guddeeg bëccëg Abdallah yow it ñu ngi lay ziar ñu ngi lay bàyyi xel de ci muukaayu Ama Balde yeeg Jac ak kii xoola poxolaay moo ko yor waaye jii la mais waa ju baax la moom it ku oyof lii lañ leen indiloon gars yi di leen jëfal di leen jox dig daje ba beneen jërëjëf